Bienvenue sur Salam Vision. aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ala seydina muhammad nabilumi wala wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima aouzu bisimilah in wala yàlla mbégte la am tey dellu siwaat ci beneen numéro waaye bëgg ci waxtaane waat lépp loo xam ne aju na ci xam-xam waaye ki ñu koy séqal di kenn koo xam ne ci Sénégal Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan doon koo xamante ni wax dëgg yàlla xamees na ko ci wàllu xam-xamu baatin bu nëbbu te réew mi nga xamante ni fii la nekk bu nu ko amee kon loole lu nu war a sante yàlla la macha allah rabbi ba tax na ku mel ni kon bu nu ko amee dañu war a santaat yàlla julliwaat ci yonent bi waaye di wàqirluwaat saa su ne ci xam-xam bi nga xam ne suñu borom baaxee na ko ko ngir mu ci mën di dimbali askanu Sénégal kon Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ñu ngi lay nuyu waaye di la ziyaaraat bu baax a baax waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Baye Talla ñu ngi lay fay nuyoo di la dalal fii ci kër gi yaag mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy siiwul fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi yal na yàlla euh, defal ñu tawféex ba nu yeggalee ak sago ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye Serigne bi tey jii de bëggoon naa nu waxtaan ci wàll wi nga xamante ni mooy tabihan ndax dañuy dégg tabihan te xamuñu lu mu doon wala boog li ëpp ci réew mi xamuñu lu mu doon nu bëggoon ni tamit euh, ngay dil ñu ci ay leeral ba mu gën a leer tam ci askan wi xam ne saa su ne ñu ngi topp jotaay yi. wàllu tabihan. mooy ñeent yi nga xam ni doomu aadama lennam day am lu ci tënku te muy suuf si ak ngelaw li ak ndox mi ak sawara yooyu lañuy wax xam-xamu tabia tabian nag lasraarkat yi ñi ci ëpp dañ koy utiliser ci bu ñuy liggéey mm-hmm. waaye itam ñaankati yàlla yi itam dañ koy utiliser ci bu ñuy liggéey ci tur yàlla. Mm-hmm. ndax li ëpp ci mbirum doomu aadama suñu borom dafa tënk ci loolu. Mm-hmm. borom dafa wax ci alxuraan yi wa jaxal naa min maa i kullu sa in xëy yi afala yuminuuna lépp loo xam ne man yàlla amal naa ko ci ndox laa ko amal. Mm-hmm. nag ci li yàlla amal la bokk. te itam ndox dafa am ci biir nit. kon nit ki mënoo koo ñaanal wala mu feebar nga koy faj wala mu am benn jafe-jafe boo xam ni di nga liggéey ca jafe-jafe booba te doo xam exactement lan mooy tabixa yi nga xam ni ci lañ tënku doomu aadama baytaal macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh ci leeral bu am solo boobu macha allah rabbi waaye ba bokk na ci tamit li nga xamante ni mooy euh, euh, xam-xamu biddéew ndax dañuy dégg biddéew biddéewu nit ki biddéewu nit ki biddéewu nit ki ñu bëggoon xam biddéew lan mooy biddéew ak ban lien moo dox ci digganteem ak doomu aadama yi tam waaw xam nga xam-xamu biddiw. Mhm. dafa ci bokk boroom xam-xam yëpp dañ ko war a gëstu ngir xam ko. Mhm. ndax boo demee ci alquran wa samay saatil buruj mhm. suñu boroom ma nga cee wax xam-xamu burju xam-xamu burju nag fukki biddiw la ak ñaar yoo xam ne ñoo tënku ci burju bi nekk ci kaw asamaan si bokkul ak juróom-ñaar yi nga xam ni ñoom ñooy dara yi mooy juróom-ñaar daraar yi nga xam ni ñoom it ay biddiw lañ yu nekk ci kaw asamaan. Mhm. xam-xamu burju nag mënoo ñaan mukk te xamoo exactement lan mooy xam-xamu biddiw mhm. kon bokk na ci ñaankat bi mu def yitte ci xam lan mooy biddiw ak lan moo lien doomu aadama bi ak biddiw yi su ko defee dina yombal ab liggéeyam ci li muy def baytaan mhm. xam-xamu biddiw lu yaatu la loo xam ni am na sax ñoo xam ni dañoo wax ni xam-xam bu nëbb la ndax biddiw yi mm-hmm. am na ci biddiw boo xam ni yaatuwaayu biddiw bi ni mu toll mm-hmm. ëpp na jant bi juróom-ñaar fukki junni yoon te nit ñi xamuñu loolu mm-hmm. weer weeg jant bi ngay séen nii rek di leen séen biddiw dañ leen gën a sori waaye leen biddiw yu ëppee suñ la ko leeraloon da nga yaakaar ni sax yàlla lépp ci biddiw la ko dëxañ loolu nag ay yeneen xam-xam la dafa xóot waaye dañuy jur nii rek waaye nit daal mënoo sori ci mbirum doomu aadama te xamoo exactement position yi burju bi di am ak daraar yi pour nga mën cee tënk booy dugg ak booy génn bay taala macha allah mu mel ni kon sëñ bi su ma la diggee bu baax a baax daal maanaam liñ naan fi nekkoon euh, weer weeg yi dañoo nekk ci benneelu asamaan waaye biddew yi ñoom dañoo nekk ci juróom-ñaareelu asamaan kon loolu lay mën a dégg ci wax ji wala déedéet mm-hmm. benneelu asamaan ak juróom-ñaaral asamaan foofu yëpp nit ñi demuñu gaa yi dañ koy waxtaanee rek. waaw xam nga gaa yi doo tënku ci ñoom. yaa ngi dégg ndeysaan li am ba des daal mooy. Mhm. lii ñuy jàkkaar lool ñun ñëpp loolu du asamaan si. que ñi am martaba dem ci asamaan ay benn benn la. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag teewee na woon na xadratu ilaahiya moo ñu nettal la ca xew. Mhm. waaye yi ci des nii ngay dégg yooyu yëpp bu ci tënku hmm. en tout daal fi sab gis yam ci la la yàlla may nga mën a gis biddiw yi ak asamaan si ci melokaan yi mu la ko mën a yemaleel hmm. yoonu foofu mënoo ko weesu ñi ko weesu itam du ñëpp lañ koy leeral hmm. ndax loolu xam-xam bu bàtin la ci yem rek foofu ma la wax nga yem ci te bañ cee sori jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu ndax àdduna moom daa jaxasoo te gars moom ku nekk ay génn di wax rek moo tax fi ne sax ñu ndi woon ko ngir mën ci am ay leeral waaye bokku na ci tamit euh, li nga xamante ni mooy wërsëg lan mooy wërsëg bëggoon nañu xam mooy lan ak itam lan mooy maye wërsëg. waaw wàllu wërsëg nag baytaa la mm-hmm. ay mbir la yoo xam ne dafa concerné doomu aadama. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci jullit ñi ñoo xam ni ay commerçant la ñu woon dañ daan am jafe-jafe ci mm-hmm. jënd ak jaay mm-hmm. demoon nañ di ko ñaan loo ñaan goo xam ni dafay dolli seeni wërsëg te doxal seeni marché mm-hmm. yonent bi joxoon na leen saaru alxuraan moom jàng boole woon na ci ay ñaan waaye wàllu wërsëg ci doomu aadama moom li yàlla wax ni moom moo yore wërsëg yi moom moo koy séddaleel boppam moom yàlla suñu borom subhanahu wa la loolu boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci waaye boo demee ca laaya ja muy wax fa qul istaghfiru rabbakum innahum kaana ghaffara yursilu samaa alaykum midraaran wa yumdidukum bi amwaalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran loolee yàlla dafa wax ni ku def lii dinaa la defal lii dinaa la defal lii defal laa te moo ne ñi koy def wërsëgaloo na leen ba pare kon xam nga yooyu day mbiru bàttin waaye doomu aadama doomu aadama ni moom mën naa dolli wërsëgam ah waaw boo ubbee sa entreprise jëli nit kay ña cay wërsëgalu yaa leen ca dugal loolu nag ñuy def ci saayir mën a accompagner ay nit lijjanti leen ba ñu lijjanti ko fii ci àdduna mm-hmm. lu ko raw fuuf ñu yor bàttin mën nañoo def loolu mm-hmm. ndax ki lijjanti nit ñi ba dugal leen ci société bu société ba paanee day dem ci borom baatin mu lijjanti ko moo gaa yi. Mhm. dégg nga wax bee. lay <laughs> ndeysaan. ki lijjanti nit ñi ba wutal leen fu ñuy wërsëgoo. Mhm. moom bu jafe-jafe amee ca biir au fonds day dellu si ci nit yàlla yi ñu lijjanti ko moom lijjanti entreprise bi lijjanti ña ca nekk. loolu lu am la loo xam ni. Euh, lu ñu mën a teg bët la lu ñu mën a leeral la ba doomu aadama yi xam ni exactement source bi lii la wërsëg daal luy yokk la ci nit di wàññeeku ci nit lu ñaan di indil doomu aadama la lu lijjanti saayir nii tamit di indil doomu aadama la bay taala macha allah euh, nag yal na yàlla dolli dolli ñu wërsëg bu gën a yaatu bañ mën ko mën mën mën ko cee liggéeyal ci ci ci kàttamam incha allahu rabbi waaye bokk na ci Cheikh sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye gars yi dañuy dem di ñaan lu ji am wërsëg ami xéewal waaye kaaraange lañ bëggoon lu daf daf daf ciy manqué mu bëggoon nga may ñu ci kaaraange lan mooy kaaraange li mu mën a jaral jëriñ doomu aadama ak fan la mën a yóbbu doomu aadama ba mu am li mu bëgg dëgg-dëgg. waaw kaaraange bu la suñ borom aaree. Mhm. mucc nga. kaaraange xam nga dama cee wax ak yow ay yoon yoon yoon façon xeeti kaaraange yi am yu bari. Mhm. tey nag dinaa la ci indil benn xista boo xam ne waa màkkatal mu karama la daloon xam nga ki ñuy wax abraha keroog ba mu amee yéene xool màkka ba ci yàgg gis ni kaaba gii ci màkka daal il faut ma dem fa toj ko booba nag laaj nañ ko loo ci jublu nungu ko woon a wax waaye yéeneem moo nekkoon dafa bëggoon a jële kaaba gi màkka yóbbu ko ci dëkkam def ko fa muy Éthiopie gam jóge woon keroog nag bi nga xamee ni ànd na ak armeem bu rëy ba ñay yaa ngi ca biir boo demee ci alam tara lépp dina leer ñu départ wuti màkk bi mu jubee màkk dafa wax benn waay mu rëppatal fasam jiitu ko yëgal waa màkk ni ñu ñëw bu ñëwee ñeenti baat rek la ko Abdul Muttalib laaj lu yëkkati Abraha mu ni ko ñëwul pour nangu seeni jabar ñëwul pour xeex ak yéen ci économie bi ñëwul pour dara dafa ñëw pour toj ci kaaba gi delluwaat waaw Abdul Muttalib nag ni kon waa Màkka comme kii ñun yëkkatiwuñ ko kaaba gi ko yëkkati kaaba gi am na borom mm-hmm. te borom mën na ko aar ñun suñ kaaraange pour ñun la waaye yàlla nag am na kaaraange boppam nañ seetaan ba xam luy xew fi ak ngoon ni bu leen sol mbubb bu koŋ yi kenn ku nekk na toog këram ba ja génn ngeen bàyyi abraha ak kaaba gi mm-hmm. yaa ngi dégg ah demee ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ahsabil fiil lam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'sin makul gaa yi nuñ def abraha armée booba foo ko xam ci àdduna fu mu nekk hmm? waaw ña défendre Kaaba ga dama ne foo leen xam fii ci àdduna fuñ ne mu ne ab arme la di boo xam ne suñ borooma ko moom armée suñ borom la boobu nekki noonu itam am na yeneen armée yoo xam ne déggagoo leen gisagoo leen te ñoo raw picc yi ab raxaya loolu nag défendre ak aar rek ñoo ko tax a jóg su yàlla demee nag ba am armée boo xamante ni si nii buñ jëmee ca Kaaba ga day yeble ñu aar ko te duñ dooni nit hmm. ah waaye nit ñi ne war nañoo wut ñoom it lu jëmale ko seen bopp kaaraange nag dañ koo teg rek ci mistik waaye du mystique dong réew mu la gën a ñàkk kaaraange moo la gën a néewi pexe ci àdduna réew mu la ëpp jàmm moo la ëpp kaaraange ci nit ñi tam noonu la nit ku la ëpp kaaraange moo la ëpp jàmm nit la ëpp kaaraange moo la gën a dalu dund nit ku la ëpp kaaraange moo la gën a gaaw li jënti ko baytaan dégg wax bi lu munta ñàkk la foo mën a jaar koo mën a waxal te néew la lijjantil sa bopp ci jamono jii bokk na ci ñi lay nax loolu maa ngi ko wax kon daal kaaraange moom doon na loo xamante ni moom ku ne war nga cee wakiirlu ba mën cee ut lu la aar ba ba nga mucc ci lu bare bare bare rawatina ah, jamono ji fi mu toll nii waaye bokk na ci tam sëñ Cheikh Ibrahima dañuy gis eh, xeeti feebar bëgg naa benn bi ci njëkk mooy nga wax ñu lan mooy feebar waaye sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ñu bari dañoo seede ci moom ni dafay gis xeeti feebar yoo xam ne tey hôpital du ko gis maanaam saayir du ko gis baati na koy gis. waaw xam nga feebar moom. ci olof moom la ñuy wax tawat. Mhm. mbirum yàlla rek la. Mhm. bu yàlla di natt jaam ñi eh, natt na ci nag ñu bari ndax feebar ay yonent sax feebar nañ mhm. nit yàlla yi da leen di gis ñu feebar feebar nekkul loo xam ne da nga naan kii moo koy def kee du ko def. mala yi sax dañuy feebar feebar lu yàlla yor la loo xam ni da ciy natt doomu aadama yi. faj nag ci boppam moo yombul jëmbi faj. muy feebar ak muy soxlaat lu mën a doon jëmmi faj ci boppam moo yombul ndax faj boroom xam-xam moo koy def mosoo gis feebar ñu naan wuti leen borom doole doole fajul xam gis kenn ku feebar mhm. ñu naan ko leen ci mbokk yi ki ci ëpp alal mu faj ko mhm. wala ki ci ëpp doole mu faj ko mhm. woo leen ku xam boroom xam-xam mu faj ko nga dégg kon feebar xam-xam moo koy faj xam-xam yi faj feebar nag yan façon xam-xam la ci secret mm-hmm. am na secret boo xam ne moom ku mën a feebar ci àdduna ku mën a doon secret boobu mën na la faj mm-hmm. ci xam-xam nag am na xam-xam yoo xam ni dañuy faj yi bàyyi mm-hmm. faj yi bàyyi yi alxuraan dañ lay wax ni wenn saar mooy faj mbooleem feebar yi dal nit ñi yëpp muy faatixatul kitaab moo xam nag la muy àndal waaye nag yeneen secret mën nañoo doxal lenn waaye di nga jël secret di ci faj loo xam ne secret bi du ko mën a faj nga génn ci secret bi dugal ci faatixa mu faj ko mhm. est-ce nga wax bi di nga jël secret di ci faj lenn secret bi du ko mën a faj nga génn secret bi dugal faatixa faatixa faj loolu loolu na xam nga nu mu demee mhm. dafa mel ni docteur ak infirmier mën na cee ñëw kuruj kuruj kuruj kuruj kuruj kuruj waaye bu munta sotti rek docteur ba lay bu docteur bi ñëwee moom day daal di lijjanti problème bi noonu la faati xamel ak yeneen gars yi ci secret yooyu loolu nag nitu yàlla moo koy xam ndax man mhm. am na benn malaat bu ñu mos a indil fii waxtu timis comme dama julli ba toog jàkkaarloog penku am lu may werd bi ñu ko indee dañ dama ni ko tooga rek di ko xool mhm. mu ñëw toog ci sama wetu càmmoñ ma ne leen yëkkati leen ko yóbbu kii mënuma ko faj te feebar bi du wér. ndax toog bi mu toog ci si sa càmmoñ. waaw jamono bu toogoon sama ndijoor rek ma faj ko. xam nga tegtal bi soriwul. Mhm, mhm. waaw nag lu nekk daa am loo ci ci orienté waay taala. <laughs> Euh, wallaahi lazi laa ilaaha illaa huwa man ànd naa fi ak nit fii. Mhm. ñëw ñu toog waxtaan ak yow ba yàgg nga ni ko demal faju yi Mm-hmm. man la sëñ bi nga ne na dem faju ji ci la feebar mm-hmm. teguñu ci ay jamono ay fan mu génn àdduna waaw waaw loolu yëg-yëg la wala baatin la walla gis-gis la boo amoon yow déedéet xam nga yaramu doomu aadama mm-hmm. sa yaram wu ñuul wi ñuulul rek loo ci bëgg a gis mën nga ko cee gis ndax li ci biir ak li ci biti bokkuñu yaa ngi dégg bi mu toogee nag am na lu ñu suñu borom won ci moom. Mhm. wax naa la ko waaye xam nga émission duñu leeral lépp. Mhm. Mhm. nee naa la kii melokaan bi mu yor ñiy dem ñoo ko yor. wallaahi lazim waaw melokaan woowu rek laa gisoon ci moom. moo tax ma ne ko nag boo sàgganee di nga fi jóge ak ko ci nag loo xam ni ay kii la waaye nag ñu nit yàlla bind ñu rek bàyyi ñu noonu ñuy kii am na lu ñu dénk ba ñu mën a xam. ndax doomu aadama bu ñëwee ñoo koy waajal waaye buy dellu ñoo koy waajal. kon li ci moom am na luñ ci xam baay taala a allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye jëmm jooju itam noo ngi ñaan ci darajey Seexuna Ahmadul Xadim yàlla na sama borom xaare ko ci àjjana yi te jéggal ko mbooleem rëq-rëqam ci darajey yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax sunu sunu woon sunu xarite woon te wax dëgg yàlla ba nga ko waxee ak bi ko loolu yi dal it daanaka diir gu gàtt sax nag wax dëgg yàlla euh, bokkul woon ci jotaayu tey bi sax waaye xëy na bi ngay nettali ci feebar sax moo tax mu ñëwaat ci sama xel ma dugg si waat loolu macha allah rabbi waaye bokk na ci tey jii sëñ Cheikh Ibrahima doomu aadama bu damay dégg ñu naan dafa tëju lan mooy ubbi doomu aadama ci boppam ba mu mën a jëriñ boppam jëriñ aw askanam waa lii ubbi doomu aadama daal bari na lool hmm. waaye man moom yàlla may na ma yor naa ab sangat bu may defar boo xam ne hmm. tëjul ba wut ñu la tëj dolli la ci boo ko sangoo di tijjee gaa yi ñu ne dégguñu tëjul ba wut ñu la tëj dolli la ci sëg boo ko sangoo di bi nag daa bari ay mbir waaye dinaa la ci junj dara secret bu tiina ba naa si ma nga ca biir ak yeneen yeneen xamee te saa aloon tamit ma nga ca biir mm-hmm. waaye daal secret boobu. koo xam ne da ngaa tëju tëju nag mën nañ koo leeral tëju mooy koo xam ne li ngay xëy di wuti yaag say morom mënoo cee jot mm-hmm. wala boo ci jotee doo ko jariñ ndax am na boroom wërsëg yoo xam ni yor nañ wërsëg wu ni gàññ waaye ñoom dañoo tëju ci biir wërsëg mu mënu cee jariñ seen bopp mm-hmm. am na ñoo xam ne tukki nañ am nañ wërsëgu tukki tukki nañ ba àgg réew mañ ah, nekk waaye mun ñu fa am dara mm-hmm. ñooñu dañoo tëju yaa ngi dégg am na jigéen ñoo xam ne sëyi nañ waaye sëy ba ak mënuñoo am ci sëy ba doom mënuñu fa am jàmm ñooñu dañoo tëju ci sëy ba. Mm-hmm. mbooleem tëju tëju yooyu ma la wax nag. képp koo xam ne ci nga tëju sangat bii ma yore muy saafara bii laalal. laalal waxuma la nga sangoo ko waaye fu saafara si tuuru rek nga dox ci suuf sim tuuru ci bis boobu moom sa bagaas dina say say mbir di nga laal. kon xanaa mooy biñ ma doon wax naa maan fi ne laal toog muy dox. bokkut ak yooyu bokkut ak toog muy dox non yeneen la te yooyu ci ay jaar lañ koy def mais dama ni saafara bi buñ ko tuuroon fenn nga jaar ci kaw fi ñu ko tuur rek jàll bis boobu moom di nga soqe ko surtout wala nag nga sangoo ko niñ la ko waxee loolu nag secret alxuraan la bu leer nañ nee naa la am am jafewul nu nit di def ba nu nit di def ba am loolu moo jafe waaye am nii moom jafewul bu yàlla dikkee rek nga xam ne lépp dëgg la baytaal kon sangat boobu daal kon mooy biñ biñ ma dee bërki dee ma ne ma sëñ bi fi ne am na lu lu yeesu peq lu mu lu mu lu lu mu fa génne fan yi. waaw Ahmed xam nga laa ko wax dama ni ko woon. <laughs> ne na Ahmed laa ko wax de baal Ahmed man dama am ay dama ay agent secret yoo xam ne. Euh, loolu ne damay bëgg ñu ñu ñu ma koy wax por parce que gannaaw dañuy faral di def jotaay yi te àdduna dañuy topp jotaay bi. macha allah waaw xam nga saa waay daa ñëw. Hmm. ma koy yónni ay parfum parfum bu ne mu laal ko parfum bu ne mu laal ko parfum bu ne mu ne parfum yii yëpp ci biir biir bagage yi moom <laughs> ma ne ko yii nag <laughs> ab sangat bu bees la xam nga moom it xabalee ragal ma ko woon mhm. waaye ah noonu la ndax yooyu dama ne woon sax du ma koy liggéey waaye xam nga nag doomu aadama yi bu ñu la wutsee ak seen i aajo kenn waaw kenn ku nekk di la woowee fu nekk ci àdduna bi mhm. war nga leen a jox loo xam ni lu leer lay doon lu gaaw moo tax sans xam-xam yooyu ma koy liggéey waaye xam-xam yooyu mhm. fas yéene moo ko woon a liggéey ndax dama ne woon gars yi am na soxla bu toll nii. Mm-hmm. waaye nag gis naa ni ak corona bi faaw moom boo yëngalul bagage bi du baax. damay ragal est-ce que doo ko doublé wala nga triplé ko sax. nag fi mu ne parce que. bii bi doy na nee la fi ñu sotti suuf si boo ci taxawoon deux minutes ci bis boobu di nga ñam. Euh, dose bi de xanaa da ko war a sotti fi ne ñu mos ci ñun bala noo bala noo def dara fi mu toll nii fi mu ne nii moom caméraman daal fi ne wax leen bala ñoo def dara moom mu sotti ñu mos ñun ba pare. da da ciy am solo moom fi mu toll sëñ bi. Mm-hmm. macha allah yal na yàlla xeb dolli te gën a dëgëral taxawaay bi. nit ku baax daf ma woo ma ne ma sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ma ne mu ne ma dama gis dafa ñeme tëju. Mm-hmm. këram doo dem ba fekk faran. Mm-hmm. rendez sax bu la koy jox fi mu daanaka ma ne ma lan moo waral loolu ma ne ko danga ma koo laaj mu ne ma ne ko xaw ma ko waaye su ma yëgee danaa ko laaj. waaw tëju moom mag ñoo njëkk ña yeneen teex nit ñu baax ñi. képp ku jëm ci suñ boroom te muy dëgg di wéet yaa ngi dégg eh, tëju gi ñun saayir la ni rek waaye yàlla li jigéen nit ñi jigéen nit ñi mos ñu ne xaw ma nekk ñu ngi ko fay joxañ de mën <laughs> a ñëpp de eh, waaye li muuru ci nit ñi rek mooy muuru ci yow ba ñëpp ni danga ngaa tëju waaye nag dafa am loo xam ne yombul mm-hmm. hmm? daa loo xam ni yombul tur yàlla boo ko yoree mënoo am jot wax jee bari rek waaye mënoo am jot mhm. ndax li ngay jot ci tur yàlla wi moom ngay jot li gaay mhm. waaw boo ko jëlwul lu baax bi ndax mës naa la dégg ci sa benn jotaay nga ni fi mu ne seetal doomu aadama bi ba xami soxlaam xam li mu bëgg dégg moo gën a jafe faj doomu aadama moo gën a jafe faj moo gën a jafe ñaan ndax seet dafay dugg ci xaybu loo xam ne suñu borom da ko nëbbu fi nëbbu nag nëbbu ci ñépp ku ko xam jàmbaar nga waaye bu lépp nëbbu rek nga ne li ñëwagul kenn mënu koo xam yow mal xiyaam lépp mën naa la koo teel fii génne la ko ci kaam bi wax la na muy demee dara ñëwagu ci dafa ko jàngale li nëbbu itam dafa am ci tur yàlla yi fooy jaar ñu leeral la ko waaye yoon woowu nag buñ cay jaar des fois appel yi mën naa bari lool waaye li ñu nekk day gën a neexi appel gën a neex xaalis gën a neex àdduna ba duñ ko bàyyi. Hmm. yàlla lay waaw li ñu nekk daal <laughs> day gën a neex xaalis gën neex appel yi gën àdduna moo tax duñ ko bàyyi. dañ fa jógaatee nag ñëw lii ndimbal ci liñ indaale moom nañ ci dimbali ñëpp. Hmm. waaye sama kurus gi daal kenn mënuma koo tàqale moom. Hmm. ndax li ma yor lépp. fii laa ko jële euh, am na jamono pas at mi ma demee Côte d'Ivoire at mu njëkk ma bi ma ñëwee Baye Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana ma ñëw nuyoo ko mu defal ma ay teranga yu rëy li ma nag boo gisee may def teranga ji dama njot rek ni am na leer gu ma gis ci yow leer googu mën nga ma cee jariñ tuuti ma ne ko xam gis nga leer xam gisoo leer waaye daal sama kurus gi fii ak yaa ngi koy gis ci sama loxo ma yor ko na sa xel dal bu gisatul kurus gi nag moom na nga nga nekk ci loo xam <laughs> boo yeboo tiit kon <laughs> waaye daal fii ak yaa may gisagu kurus ma yor ko nii di mën a werd ma ne ko na sa xel dal indaali naa fi nag loo xam ni xaj nga ci sa moroom xaj na ci waaw moo tax laata maa jóge Koribaar taxawal na fa alal ju bare bare bare bare jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima amati na solo lool macha allah bokk ci woon sax waaye mënutoon a ñàkk ndax xam naa waxtaa waxtaan na ko indi waaye sëñ bi bu ñu ko xoolee fi mu toll euh, man dama doon naan est-ce que wéet gi ngay tëju ba du da nga dëkkaale ak ay jinne ak yu ni ndax li nga ñuy wax ci wàllu jinne ak kenn wax gu ko fii ci réew mm-hmm. moo tax ma xalaatu ne est-ce que dëkkaale woo fekk ay jinne kéef ndax léeg-léeg sax man ma ne ci biir kër gi ba yàgg gis dara loo xam ne dama koy bëgg a bu doon sama kër ma dàq ko waaye ba yàgg ma ne kër waaw kër sëriñ nag mm-hmm. du fa gis di ko rey kon nag yaa ngi dégg euh, kenn nit du fa gis dara di wax ak a def yëf loo gis daal xamal ni hmm. ni nga fi amee soxla la fi ñëpp amee soxla <laughs> waaw yaa ngi dégg këru sëriñ loo fa gis baal fa sëriñ ba du sa kër boo amee looy rey ak looy dàq demal sa kër dàqee ko fa <laughs> kuy faj di faj xeet wu ne melokaan wu ne di feeñ ci yow hmm. lu feeñ sa kër nañ ko fa bàyyi ndax kër gi sa kër la te mënoo ni ku gis lu ne rek ñëw laaj la nga wax ko lépp duñ ko wax. dëgg la wax bi mhm. waaye kër sëriñ moom loo fa gis rek bàyyil noonu. bàyyil noonu mu dem da nga wax bi mhm. loolu nag ñi koy laaj bari ndax sëñ bi daa yore junni ndax sëñ bi daa dëkkaalik waaye junni xam nga mbiram yëpp suñ borom da koo jàngale ci alquran waxoon naa la fii ni la doole ji doomu aadama am. Mhm. suñ ko nëbbul woon ñeneen doomu aadama yi junne dañ leen di génne ci système bi. ndax junne yi sax seeni responsabilité mi ngi ci loxo yi loxoy waaye nag xeetu junne lu jëm ci njabar loolu lépp alxuraan daf ko leeral loom leer ci ay aaya yoo xam ne ay wér tëng la moo tax kenn mënu cee jaaxle waaye nag yooyu waxam jotagul léegi waaw ndax sëñ bi daa yori junneeg daa yori rab daa yori àndandoo comme senegal moom day dëkk wax kat mooy <laughs> wax te naqaree waxee lool waaw waaw wax fi loo xam daal loolu lay ndeysaan jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima ci leeral bu am solo boobu macha allah bi xanaa fi ñuy bëgg a jeexalee rek mooy tey jii buñ koy xool ci mu toll nii wax dëgg yàlla euh, lan moo mën a dalal am réew yëngu-yëngu yu li ñuy wax sakki na fii amul cim réew réew ma du mhm. nag ab liggéey laaj. mooy dalal am réew. Mhm. am réew yàgg naa am opposant am réew yàgg naa am jafe-jafe yonent ya sax dañ daan am mm-hmm. ñu ñuy dajal ci seen jamono ñoo xam ni ay boroomi kàttan lañuy doon mm-hmm. kenn ku nekk xam na ni Muusa ak Xaaruna na boroom kàttan gu bari la woon ci alal mm-hmm. ci jamono Firawna waaye lam mi bari bari kàttan ci ndigalul yàlla Muusa da ko dugal ci biir suuf si mook alalam kooku ab opposant la woon yaa ngi dégg wax bi kon am réew suñu bëggee mu dal salaamun qawlan min rabbi rahim salaamun qawlan min sukkandikoo ci lool rek baatal réew mi dina dal ci guddi yi dina dal ci bëccëg yi waaye fi ñu toll nii ci jamono jii nag moom waxuma la am réew waaye àdduna bi yépp a yëngatu hmm? ndimbalul yàlla rek nag moo ko mën a daal ndimbalul yàlla nag ñaari yoon rek laa ci gis mm-hmm. ni ñaan amee ñaari yoon fi mu ne ñaan li muy bari bari bari ñaari ñaari yoon dong la ñaan am mm-hmm. ba niwul allahumma niwu rabbana leneen lay wax man xam ma ko yaa ngi dégg mm-hmm. ndimbalul yàlla itam boo ko dee sàkku ci lu mën a jëm ci àdduna bi am réew boo ko jaarewul ci sarax jaarewoo ko ci turu yàlla man xam ma weneen yoon woo ci mën a jaar yooyu nag ñi ngi fi te yàlla am na ay nit ñun dëxëñ loolu ci ñoom li gën nag mooy ñu xool li yëngu lan moo ko yëngal ñu xool wan yoon lañuy ñuy jaar ba dalal foofu la àdduna bi toll bay daal incha allah mhm. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye xanaa kon li ñu def rek mooy ban message ngay ngay ngay ngay yóbbante askan wi ndax tey jii buñ ko xoolee réew mi moom yëngu-yëngu bi mu yëngu moom jéggi na dayoo saa yi ren wa baati nan ndax ñu ngi xool coowal euh, euh, euh, tudd viol yeeg wax ci sangu-sang yi nangam coowul assemblée nationale maanaam réew mi daal yëngu-yëngu yi yëpp yëpp yëpp yëpp ban message ngay lancé askan wi ngir ñu mën a faq gën a bàyyi waat xel. Mhm. ku ci ne boppam waaye bàyyiwaat xel digganteem ak boromam itam. waaw xam nga suñ boroom bi ñu bindee ñun nit ñi dafa wax ni binduma leen ci am pox. Mhm. kon nañ génn ci pomi rek. dégg nga wax bi ñu génnee ci pom li ñuy orienté mi ngi ci suñ kanam jël ko mu orienté ñu waaye bu ñu nekkee ci pom yi jaxasoog iblis mhm. te bëgg ni dañoo bëgg a lijjantiku duñ mos lijjantiku kenn ku nekk nag kilo yàlla dénk mooy sa njiit mhm. ñun ay jullit lañ yonent bi lañu yàlla dénk mooy suñ njiit yonent bi nag caméra yi ngeen xewal ak yu bees yeeg sid yeeg yii yëpp bi ko yonent bi dajalee def ko ci kaamil tëj ko daa yàgg nañ ko bàyyi xel rek mm-hmm. <laughs> loolu mooy message bi tarkalla <laughs> kon xanaa yu mujj yi kon lan lay doon ci jotaay bi insha allah rabbi kaddu gu mujj gi mooy sant yàlla mm-hmm. di ñaanal ñi nga xamante ni si nii mm-hmm. jamono bu nekk ñi ngi ñuy bàyyi xel di jël seeni alal di def ci ñun di def lu ne gis nga mbaxana mi daa am koo ci décoré suñu benn taalib bu bees la yow nee na dina jokkoo yow mën nga ba turki turki ndeysaan gis nga juróomi façon la ci jënd wallaay keroog bi mu koy yónnee fii ne photo yi sax daf ma ko yónnee ndax nee na imaam yenn foofa ak borom xam-xam yi ñoom lañ ci décoré ndeysaan am na yaakaar ci nii am na lu ñu xam mu mm-hmm. décoré ñu ko mm-hmm. loolu mu yaakaar yàlla bu ko yàlla tas allahumma amin ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaanal ñëpp mm-hmm. di ñaan yàlla defal ñu dig daje ci jeneen i jamono incha allah incha allah jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci waxtaan wi ci leeral bu am solo bi waaye ci ci tegaat nit ñi tam ci yoonu siraatal mustaqiim ñaanal la yàlla bu baax sama borom dool la taxawu ndax lii tamit jot la ndax ñi la yittewoo ñëpp ak ni nga ko waxee li ngay mos ci turu yàlla wi ba tax fi ne doo mën a dëkk kenn wala doo bëgg ne ci lenn waaye bu nu ñëwee nga ubbil ñu utal ñu jot goo xam dinañ mën a waxtaan ak yow kon noo ngi ñaan ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na borom dool la taxaw gën a guddal saw fan gën a wéral say cër askan wi li nga leen naanal yëpp sama borom defal la ci lu kawe sa njot waaye ñaanal bu baax a baax i tamit sunu mbokk moomu sunu su su sa taalibe bu bees boobu nekk foofu ci Turquie ak sunu sunu sunu maire ba ca États-Unis moom it ndeysaan ñoo ngi ko ñoo leen di siyaar mbooleem xarit soppe yeeg am di jàmm yëpp ñoo ñaanal kenn ku ci nekk fan mu ne lay bëggam ak yéenam yal yàlla sama borom jàppandal lépp ci darajey sangub sang yi waaye di leen wax ne rek nañ ñu topp ma topp ndax am na lu bokkoon ci jotaayu tey bi waaye dama ko dagg ndax loolu dama bëgg mu doon jotaayu spécial ku bëgg xam ñetti président Afrique yi nga xamante ni ñoom la mystique gën a jàpp ci àdduna nañ ñu ko ci suñu jotaay yii di ñëw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal waajale nañ ko bugg génn ci loola noonu ci jotaayu tey bi nag la bokkoon waaye man maa ko dagg bëgg ñu defal ko jotaay spécial kon nanu ko waaj te bàyyi ko xel te xam ne lépp tamit euh, Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan dinañ dinañu ko leeralal ba mu leer nañ ba kenn ku ne xam fu muy teg tànkam kenn ku ne xam nu muy def ba mucc waaye kenn ku ne tam xam nu muy def ba mos ci daraja yi Cheikhouna Ahmadoul Khadim suñu yaakaar dig daje ci beneen jotaay